No tay ah, <laughs> mom man ma fi nekul di mer tay mom damay ree bu vidéo bi jeex xal ma tek ndang sama meew ya ak sama biberon quoi seex sama socc bu vidéo bi jeex. man daal je suis peur là déception quelle déception du jour quelle déception du jour. ndaxte président bi ngay waxal booy wax ak moom di mer bu yàggee sa xëtër gi lay escanté il faut ngay ree ànd ak lan la lan mooy sa problème. tey moom sama problème kenn rek la muy prési waaye bu ma yàqal dama soke xanaa ci nitu cinquième siècle yi. non man man damay laaj. laaj. li may laaj mooy ñun prési lan la ñu jàppee. moo ma jaaxal. saa <laughs> sama sama ngaam yaa ngi saxaar te bu ma teelee sonn ci kooku rek xamal ne prési moo ma teg bi. ana man kay ma ngi ni chaque jour ma ngi présent même ma tuuti ba mo paré rek. la <laughs> lu xew. tay kay li xew len la ndax te président mom mo len dana jël 66000 jeunes wutal len am xey dès le mois de mai. président mo wax lol moko wax de. Ah, mm, man dama soké de. man tamit dama planqué. fan la ko waxee. ci discours bi mujjé def temps yi ci njeexitalam loolu bam commencé ba légui ndax mënon nako ko kañ. ndax mënon nako 9 ans. loolu de mom le jeune yépp taxaw def seetlu nan li mbaa du poisson d'avril. président Macky Sall coow li yëpp aussi moom moo ko teg boppam. dëgg du romb nopp. président bu ne bi nga ko falee ba léegi 2012 ba 2021 mi ngi doog bàyyi xel ndaw ñi. mi ngi mel ni de maxi bu daw ba am 5 minutes ñu am penalty jox ma ko ma rate ko. ba à la 99 minutes ñu am contre attaque ruuxal ma profondeur. may jaay spectacle live brésilien. di jéem a reprise bal bi ba far lajj ko. <laughs> dafa wane ne lajj na. moonte lajjul lajj bu ndaw de. ca ca lajj yu njëkk yàlla lajj. aw ah yi ndaxte 2012 la nekk ci bopp réew mi 2013 nga waroon na gëstu ndaw ñi. dafoo ko. boobu sax garaawul mën nañoo comprendre ne li muy doog ñëw moo tax. mais. 2014. defoo ko. quinze defoo ko. ba tey jeunes yaa ngi lay déglu. nga lank bañ. 2017. defoo ko. 2018. defoo ko. 2019. defoo ko. 2020 ñëw jeunes yi ku ci nekk jàpp fi nga jàpp rek di góorgóorlu di taaba taaba donte sax réew mi amul am xëy. nga lank bañ.

une très bonne question mbaadu mbami kay lay ragal. mun na nekk nag. rajo maxrajan. tey. moom mii ci la bok dama bëgg ñu waxtaan. père yu ci lan nga bëgg ñu waxtaan tamit. dama bëgg ñu waxtaan ñu toj yax bi. père yu tay da yaakaar naa fi yax bi lenn dong la muy emploi des jeunes. on parle d'emploi. oui. man gis na lo gis. gis na lu muy daj. pour moun trouver des solutions. ay péer yu taxawal. li nga wax ni te ko fete feel. forage ba teel a jaay. yu mu toog ci bopp réew mi yépp ba tey te li ëpp solo ci réew mooy ndaw yuy liggéey. ndaxte ñeneen ndaw ñi ñoo war a yëri réew mi ëllëg. ngay doog a wax ni après maa ngi doog comprendre xale yi et puis génne 450 milliards. waa 450 milliards ñaata emploi lañ ci mën a am sax. 450 milliards économistes yi ci wax yëpp nee lu mën. kon mënul dara nii. 450 milliards yo xamni yow buñu xolé li fi jaaragun yépp liñ dig sénégalais dara lañ ci deful. père dam doguma la. amatuma équilibre. mais président bul fàttali digon nañ fi 500000 emplois ba jonne yalla ji tay ñun teguñ ci bëtt donc donc mbir mi amna fu mu tag. wa do ci leeral nit ñi. Euh, moment wala loolu gëmoo mu gaaw a leer de. point bobu leeral ko. mais père job loolu bu leen ci sonn point bobu du mësa a leer. <laughs> man sax nit bu ma wor. wóoraat ma koku dama ko jombu tok di jël 1 minute nan dama koy te metti métti xol bi ma am. nga ne. Sénégal ngay gis ku jang bo am ay diplôme xëy di dawal seret. man méttitu xol bobu la am. si méttitu xol bi ma am bokku na ci Sénégal ngay gis ku def carrière am ci jang pare di cag-cag wala muy dawal moto Jakarta. man méttitu xol bobu la am. si méttitu xol bi ma am bokku na ci Sénégal ngay gis ku jang métier ba mën métier xey tek ko fi di marchand ambulant ndax dëkk bu dëgër. man méttitu xol bobu la am. Wow. Zal. salut. donc Saliou rafetlu nañu bu baax kaddu yi nga wax. li nga wax aussi dawna yaram. dawna yaram rek Amu solo li upp solo moy mu dawlo sa yaram yow bañ ci def ay djego deug du nop ndax ndaxte ku jang sa métier ba mën sa métier. wa deug yalla di nga am métier. wala nga jang ba am say diplôme. war nañu la reconnaître jappale la yow nga ber sa dara manam am sa atelier té nga xam lool ba paré dañu tankam lu samari di gën di bëri té nga bay heure bo défé ci discours ba paré rek tu tuddoo ciép do am jam. loolu mom faaw ñu leen di bay xel ci ciép beeg déw beeg yu démé nonu yow prime dip nga ne ciép xana ciép bi doonatu sun xaalis wa sénégal ngir yalla ngir dina leen cotiser delloo loko ciép ndax ñu am jàmm xol ko tudd dina ciép bi ñaari kaddu yu mu tuddu na ciép mom kay li discours bi xat xat xat dina ci boole ciép sénégal dafa bëgg ciép mu ni sénégal dafa bëgg ciép loolu de provocation la duma ci tontu ndaxte da nga mas nun gi xaaral ma rek ku dik rek dal di tontu bopam non Macky Sall day xaru. man de li la wax mbaa yéen loolu ngeen wax. ñun lii nañu wax do wax Ndoye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defé ñu baye maam mu ñaan ba benen yoon. Amin.